tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci xew-xewub jamono bokk yi ay ab diir a ngi nii ñu ngi dégg euh, ñoo xam ne dañuy nekk bañ ne baasin yàlla ñu ne fojjet di dox seeni muraada euh, ñooñu nag bu ñu leen seetee dañuy jëfandikoo ci ñoom li wolof di wax naan yedd yërëm a ko gën li ci ëpp euh, ci ku am lu mat juróom benn fukk mën nañoo doon sa ati doom mën nañoo yor sa ati doom ku ko yées tuuti mën nañoo yor sa ati rakk walla mag tuuti kon boog ñoom la ñuy jëkk a waxal ñu xam ne dunduk àdduna dafa gàtt gàtt lool doonte téeméeri nit la fi yàlla àppal nit ba mu xam ko it lu néew la ci li fi àdduna amagoon ak lim fiy amaat gannaaw moom bu faatoo gannaaw bu fi amee téeméeri at diggante bi lam fi fàggu euh, jamono ba mu koy man moo gën a gàtt ci ak dundam jamono ba muy man di liggéey moo gën a gàtt fuuf bu ñu dendalee atam yi mu am yépp at yu néew la su ko defee nag loolee mu cay fàggu na bàyyi xel ne lu mu bari bari buy demit tuuti lay yóbbaale te li muy yóbbaale sax du xam ba xam yóbbaale na ko mu déet muy ay morso yu néew moo koy topp su ko defee nag dana fa yóbbaale dara waaye lam fay yóbbaale buñ ko ko tegaloon ci film mu di ko xool saa bu ko xoolee wat day du mooyu ndax bugg koo teg bët su ko defee nag lépp loo xam ni daf koy fàggu te ñun ñi ñëpp kenn xamagul kañ la ñuy ñëw ci yow kañ ngay aaye waaye su boobaa ñu xam ne lañ cay fàggu lépp lu nit di fàggu bu ca tasee yaakaar dajale ca yaakaar dana jafe yaakaar moom ku ko tas dajale ku lu jafe lay doon kon boog ak dund diggante bi ci nit di man lu tuutee tuuti la donte téeméeri at la fi am su xase ba waasu weesu juróom fukk ak nangam rek ñu bari dutuñ ko nangoo jël mu di leen liggéeyal kon day mel ne fàggu mi ngi tàmbalee ci ñaar fukk ba ñeent fukk ak juróom jëm juróom fukk su ko defee nañ teggi seen tànk te wàññiku te tuub loo xam ne boo koy def bëggoo ku la gis jagut euh, suñ bu mag moo jàngale woon ne fexe leen ba sax ci lu baax ne tekk moo am ku ne ko la ca des nag mu ne ko la ca des bu ci sa yoon nekk mu ne ko nu may xame lu baax mu ne ko lu baax moo weesuwut loo xam ne boo koy def doo bañ ko la fa fekk bañ ko ko nett kon boog ni ko jot na ne loo xam ne boo ko fàggoo ba am ko it boo toogee di ko jëfandikoo xam na ko amee saw yaram day daw boo bëggee jógaat nooy def da ngay fexe ba bañ a ànd ak sa sago muy ñaar ba ñett yëf yoo xam ne day topp nit yowmal qiyaama te kat bis bu nit weesu dund ko rek duutu duutu dellu si waat mi gën di jege bis bu muy faatoo waaye yooyu mën naa am yu koy waral ci ab société diiney lislaam ci mat gum mat sëkk taxoon sunu borom di wax naan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina amut lenn luy taxaw ci kaw suuf te amut lum ca mën a wax jaam bi ci nos gi muy nos ba nos luy pas-pas ak lu koy firndeel ci ay jëf daf ca nosaale yoo xam ne moom yu yu mu fonk la nos bu mu fonk muy ab jëflante diggante nit ñi kenn ku nekk ak moroomam ana nu mu war a siqi ak moom su weesoo dem ci boroom kër digganteem ak këram ñam ca siqal nu mu koy siqi ak ñoom dem ci ab quartier dem ci village ba ci dëkk bi gën a mag muy dem di dem ba ñuy tudd koo xam ne ñooña ñépp moom la ñuy su boobaa nag lislaam am na lu mu tëral loo xam ne kuñ jëflanteel te waruñoo jëflanteeg yow noona neexu la mënoo ca dara am na bat bu teg fële boo xam ne ki néew doole ak ki am doole ñoom ñépp war nañ ko mën a yaakaar ci bu fekkee dañ laa tooñ te mënoo fayal sa bopp te waroo fayal sa bopp loolu la ñu tudde yoon yoon mooy al adala al adlu al adlu moomu nag buñ ko tuddee xel dana dem ci ay atte waaye weesu na ay atte weesu na ay atte maanaam nit toñanteeg moroom rek ñu yóbbu ko ci li ñuy wax yoon ku ne xam ne ne yoon lu am la waaye la cay nux nuxi ci ab xol mooy na ca ka cay jaar di jaare loolu la tax ñuy wax yoon bu ñu ko joxoñee rek joxoñu yoon ci boppam waaye ka ca doon jaar yoon wam ca jaare bu ñu koy leeral nag yoon mooy lan mooy daal bat boo xam ne bii ku dem boo bu sax ay ñëwee mu jox la nga nàmp minit ya nga war a nàmp doo ko ëppal doo ko yéesal boo ko saxee te nàmpuwul yaa ko xale yëg waaye moom bu minit di jeex mu jël batt ba jox ko keneen du yéesal du ëppal loolu mu tudd yoon ci baat bi muy melokaan woo xam ne nag melokaan wu yor war yoon war a am suñu borom daf koo fonk ba boole ko ci ay melokaanam kuy tudd kuy lim asmaullahi alxusna dana ko ca limaale mooy koo xam ne lenn lu ca nekk na mu ko tërale ku ca jaar doo jàppanteeg sa moroom téere baat mu mel ne suñ tuddee yoon xel dana dem ci yu bare bare bare bare waaye li nit ñi gën a dem rek mooy ak yi waaye bokk yi su fekkee yoon moom moo tëral ne yéen ñii yéen bu leen neexee doxe ci nii ñaa ñoom suñu caa doxe nen lu dul la neex ñii rekk su boobaa nit mën naa jóg di jaar fu mu war a jaar loola la ci gën a ràññiku mooy yi nga xam ne yàlla daf koo def ci biir suuf si nga xam ne ñii ñëw ñëpp ñun ñii ñëw teew fa la ko suñuy maam fekkoon donte xamuñu ko woon yàlla fàggul ko fi ay sëti sëtaat ki sëtër ci ca kanam a kanam a kanam ci misaal rek suñ ca joxee ab cër ab lim boo xam ne ñoo ci gën a yey ña ca des su boobaa yoon a ngi taxaw waaye nañ ca doxe moo indi dang daay ka moo ne déggees na fi bataay yi it bu dee ci àtte lañ jëm si wax ak nit rek mu ne danaa la tëj te moo ne moom bokkut ci ñu war a tëj xaw ma nag muy def ba man ko waaye gisees na ko ba tàyyi te lam waxoon day wér wala koo xam ne daa tooñ dañ koo tooñ kon daa tooñ moom daa am kum tooñ ba noppi wëlbatiku ne ko yow kat da xam ne du ma sa moroom danaa la làq jant bi loolu it xaw ma nu muy def ba man ko waaye léeg-léegi ñu gis ko wala ñaar defandoo lenn ñu ne ciix kenn ka bàyyi fa ka ca des du ko mel ni ku ko gisul loolu it bu dëkkut bari na lu mën a am loo xam ne nattu suñu borom lay doon ndax xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, bu gudd la lu mel ni ab xutba la ko defoon ndax ci li ñu tuddee ghazwatul fath dafa am jigéen joo xam ne daa sàccoon loo xam ne ku ko sàcc dañoo war a dog loxoom euh, xëy na mu am ay xame ca biir mbooloom am na ko daal am na ci daal ku nar wax Uzaamatu bnu Zayd soxna sa jàmbat ko mbiram moom Uzaama mooy mu ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam ne ko jigéen ji dañoo bëggoon ku ko yërëm di ko ñaanalu njëkk daal ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi ne ko waaw Usaama yow loo ma yabe ci suñu waxin ba fekk loo xam ne yàlla ko rëdd mun a wét assaariqu wala wassaariqu wassaariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min allah nga bëgg ca lan bëgg ma caa wax loolu lan ginnaaw bu yàlla waxee tëral lim tëral ñëpp xam ko mu ne ko maa ngi lay jégglu te ñaan nga jégglu ma yàlla di tuub ci kanamam mu jéggal ma dama juum yonent bi ne ko mi ngi waat ci yàlla xanaa lu yonent bi di waat koo xam ne du wax bakk na mukk te lu mu wax dëgg la fañ toll lay waxee ak ñun am na ñooñ booy wax te waatoo duñ ko gëm mu ne ko ma mii de ma jur bu defoon lii daw si def ma dagg loxoom bi kooka nag bokk yi ba yoon amee moo ci na ñàcc teg ca tànkam te du geesu su ko defee kon faaw ñu delloosiwaat euh, lenn lu nekk ña ko bokk kenn ku nekk ñu jox la ci sab cër ba nga xam ne sa wàll nga ci daa ak sa ci yow gëm loo la ko waaye su fekkee yow dem nga ba naagu ci ne lii ñu séddale mënoo cee am jëfandikoo léebu woowu nga xam ne tasaaroo woon na bu yàggutoo ci ne euh, ñett a ngi nii ñoo xam ne kii daa dem ci réew mais kii dem ci meneen réew kenn ki ñëw Sénégal nee na réew mais boo fa demee dañ nan la demal indil ma say këyit ma xool ko xam fi nga jaar moom diplôme rek la gëm xamul ku ko mën a ku ko mënut waaye ku yor këyit yi la gëm mu dem ci meneen réew ñu ne ko demal loo mën a def lan nga man gis nga mbokk yi xam ko man ko moo ko gën a wóor kooku ne ko amee loo mën a defar bu nee nangam la ñu ne ko defal ñu xool ba lañ laa jox nee na ñaari réew yi moom noonu la ñuy doxee kii naan ana say këyit kii naan loo man waaye nee na bi mu ñëwee ci suñu réew mii nag moom laajuñu la kay di laaj muy ay këyit laajuñu loo man dañ naan la ku la booleeg man ku la booleeg man nag ca la yoon tàmbalee wàcc ña cay dox ca lañ tàmbalee wàcc yoon wa ndax fas na ko yéene sédd cër boo xam ne du ko sedd kam fa taseel te kenn boolewu kook moom moo ne sëñ bu mag bi firi na aayab alxuraan bii nga xam ne ñu bari seen àlluwa soriwut waaye jàng nañ ko jàngaat ko waylun lil mutaffifin alladina ida ktaalu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluuhum aw wazanuhum wazanuhum yuxsiruun ala yazunnu ulaika annahum mabuuduuna li yawmin aziim aaya boobu day wax lu mel ne am njaay naan aw xur wu xóot wu metti am na ñu cay dem ëllëg ñu ne ñoom mooy ñi nga xam ne bu ñuy jëflanteeg yow ci wàllu liggéey bu dee jaay ak jënd booba moom la ñu ko mën a xam ba léegi mi ngi am bu ñu le bu ñuy jënd ci yow dañuy fexe ba bala moo daanu jëlub diir waaye bu ñu lay jaay dañuy fexe ba mu gaaw a daanu bu ñuy fexe ba muy yéex a daanu la cay topp dañ koy sàcc ci yow waaye bu ñu lay peesali dañuy sàcc la ca waroon a tege mu féetewaat ci ñoom. Euh, aaya ba nag laaj ne waaw ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun baadu ñooñu dañoo jàpp ne ëllëg si bi duñ dekkewaat taxaw ci kanam suñu borom moo tax sëñ bu mag bi ne ku bëgg a teg sa tànk ci yoon dangay ngay jëfandikoo yaari bayit yi da ngay fexe ba kenn ku nekk la mu war a am nga jox ko ko boole ko yéene ko ko nag bul ko ko jox ci kaw suñu mëna ko bañ jox rek waye dang koy won yene ju ma sëkk ci ne li suma la sañoo jox lu ko ëpp jox la ko irham uxay jamia alxalqi kullihimu wandur ilayhim bi ayni lutfi walshafaqa waqir kabirahumu warham sagirahumu waraaci fi kulli xalqin xaqa man xalaqa kenn ku ci nekk bu ñëwee taxaw ci sa kanam Euh, te yaakaar ne yoon moom mooy batt bi ñëpp war a nàmpe rikk soo ko xoolee muy gone euh, jàppal ne yaway baayam loolu teg ci sa loxol doom bul ko teg ci loxob koo kii su fekkee xool nga ko mu tolloog sa wayjur walla sa mag xoole ko su fekkee yéen a maase nga jàppe ko ni kat loo bëggut ku la ko def bul ko def sa moroom loolu sax génn na ko cadre nit ñi waaye daf ne lépp lu yàlla bind daal xool ci yàlla mi ko bind rek boo ko boo ca xool yàlla mi ko bind doo ca juum su ko defee nag kon euh, bett nit ci këram fas ko yéene yongu yongu ko mooy faat ko yàlla na yàlla jéggal ñim jot a jàkk seeni loxo teñ tuub amul lenn lu nit di def ci kaw suuf loo xam ne bu ko tuub yàlla dëgg ko jéggal tuub ga nag mooy rëccu ko te fas yéene duutu ci dellu mukk waaye romb nit it jël lam yoroon mu wax wax amut pexe mu jooy ne bàyyi na la ak yàlla bàyyi na la ak koo xam ne kii doo ko rëcc mukk waaye it léeg-léeg mu am kooko wane sañ-sañ bu rëy ci ne fu leen neex dem leen man fu ngeen ma yóbbu fara leen di bàyyi te moo ne lee léeg xaw nu muy demee nag waaye léeg-léeg it mu amee noona su boobaa nag faw yàlla daf ñuy teg nattu boo xam ne duñ xam lum doon ndax xutba ba ma doon wax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa ma ba marax jotee mu jóg taxaw rek tàmbali ni muy xutba ne xanaa xamu leen ne la alagoon ñi leen jiitu woon mooy ñoom dañoo tëraloon yoon moom àgg ca dëkk ba waaye nag daawuñ ca dox ca teg gi walañ daan jaar bokk yi la nga dégg nga dugg ci oto mu jaar ci yoon wu xaw a bari ay pax neexut na mu war a neex daal nga dégg ci oto bi ko ne tee nga jaar ci teg bi moo gën a neex moo gën a neex waaye teg fu mu jëm léeg-léeg mu soreeg tëli bi lool de ba nga naan mbaadu dañoo far bàyyi yoon wa war waroon a jaar léeg-léeg mu dal aw nit ñoo mën a xam yénent bi nag nga leen ñooñu dañoo tegg woon seen yoon seen seen tànk ci yoon nañ ko doon defee mooy ku fab lum moomul wala mu tooñ tooñ gu ba ñëpp xam ko te bokk ci yax sàngam ñu nës nësal naxasaayal ba mu doxee fa réer ne mër kenn du du am trace du am jeexit waaye ñenn ñi nag buñ nee cas ganaar ganaaru jàmbur te joxu leen ko sax ñu ne ko raw fàtte ko fa mën na faa faatoo ca la doon تكسب مونك دي اما بعض فانما اهلك الناس قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها ca saasa mu ne ana jigéen joojee doon ñaan njëkk ci li yàlla tëral ba noppi mu ñëwal boppam ne maa ngi mu ngi nii mu ne dagg leen loxo bi ñu dagg ko waaye ana lum jural jigéen jooja aïchatu radiallahu anha nee na lam ko jural mooy tuub gu wér jublu ci suñu boroom kenn dutu ko teg bët ndax kersa gum am ak kuuñam boobee waaye nag saa bu amatee yitte xelam dina ci sàcc waaye dañu leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko damaa am yitte sàngam yonent bi feeñ ko fa mu delluwaat ba ni mu amee borom kër kon bokk bokk yi réew moo xam ne ku ma booleeg yow moo fa nekk yoon na fa ne na ngi nekkal fa ñëpp ci fànn gu nekk moo xam muy luñ bokk wala loo xam ne nit ki moo ko moom ñu xañ ko ko te amut fu mu jëm. li ma wax nit ci ne ku ma booleeg yow am nañu jàng jàng jàng ba mën a yor lu nekk waaye ñoom sax dañ koy wax dañ naan ñaanal ma damay déposé ci barab sàngam ah yow li nga yor ku ko yor lu muy lu muy sonnati mu ne foofa faaw nga am fa loxo bu gudd door a mën a sotti loolu nag su dëkkut fitna ji ñu yàllay teg mooy lii rek kenn xamul kañ lay aaya fitna ci ñooñoo noonu waaye ñu ngi leen di ñaan nag ñi nga xam ne suñu ati doom lañ yore ñu wàññiku ñi nga xam ne ati rakk lañ yor ñu dëpp man giñ koy man lu tuuti la te nit mën na ca amee gàllankoor adduna boo xam ne bii lam ca amoon lépp dutu ko bëgg a teg bët te way jur yi it delluwaat euh, wogasaat seen yoxoy mbubb fas yéene sonn ci njaboot gi ndax yi ñu wax ni moo feeñ rek waye amna na yeneen yu feñut yo xamne aw nit nga koy def ta fek ñaleen andi aduna ci ciobare suñu boroom amuñu ci ñoom soxla fañ leen amé fa leen leen wone gannaaw ndax li ak la ba ñu xëy di def yo xamne ku ci sa ku ci sa bët tege nga du moy do ko bëgg gis do bëgg a gis ku ni mel euh su ko defé yàlla mi nga xamne mo man lépp sañ lépp yàlla na walbati ñëpp bañ tegawaat ci siraatal mustaqim ñi nga xam ne it seen bakkan des na ca yàlla na yël mën suñu borom daw ci ñoom ñi nga xam ne it dañu ne njaboot gi yàlla leen di sàmm rek yam ca kepp wala mënulu leen dara mënulu leen dara rek yam ca nañ xam ne layoob ëllëg ngi ñëw ci Omar am na ku ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa bëgg nga àtte ma ak sama wayjur mu ne guléet loolu de li ma ko dégg bëriwul lu ngeen war a jote mu ne càll wayjur yi bëgg a wax mu ne ko déet ku kalaami ka yaa jëkk a wax al bayyinatu ala al mudda'i mu ne wutaluma wayjur wam ma war a wutal ñaareel bi it tuddewuma turu rafet yar moom waxaale wuñ ko ba maa ngi nii fu ma jubee samay moroom ñu wan ma gannaaw daw mu ne la koy àtt na boppam ba noppi kenn du ne baay tuubalal sa doom de waaye jox ko loxo rek taf ko ci sa dënn ndax xolam dal ngeen ànd dem te nga def ci sa kem kàttan ba ba yàlla di dikk loolu nag awyon la ndax dafa tase ku ko soob rek nee na ni mu ko tuddee mooy gunóorum mbiringaan la ko tudde ba noppi it wutalu kam ko ka ko war a jur loolu nag weesoo gut ndax waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la lay leeral waxi ñi ko gënoon a jege te jaayoon seen lépp ànd ak moom it lu ñu wax rek mën nay wéy ba fii mu nekk kon ku ci am mbokk mu ko gën a jege suñu bokk lañ ñoom ñëpp yàlla ñu ko boole moo ñu boole def ñu ay nit ku ci am mbokk mu ko gën a jege na ko woo waxtaan ak moom waaye jël ko yóbbu ko barab sàngam baax na de waaye am na foofu dir sa gaaw a yóbbu aw nit tax bu ñu xamee la fa nekk jeex waxtaan wi daal lu ci am solo la ak laabiire gi ak defal leen xamal leen ne tuub weesoo ku tuub yàlla mën na koo jéggal yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimina